la rakk yi tamit yàgg topp ci ginnaawam nee na rakk yi tamit yàgg di la déggal di topp suñu borom taxaw ko bu baax a baax a baax ñuy sant ñëpp nee na ñu ngi sant ñëpp. buur géwél ñu ngi koy sant. buur mii jibi Mbay mii di sama kóllëre di ku baax. waaye nag sëriñ Mbay mii tax ma xam leen ñoom ñii ñëpp. medun mii tax ñu xam leen yéen ñëpp. wax dëgg yàlla di ay nit ñu baax. waaye habitude nag di wax ci télé. nee na amul habitude sax di wax ci média. xaw ma ko xamu ko. medun mii xam na ci dara. bis bu jot mu ne ma sëñ bi kaay ma jël la ma ne ko dimbali ma rek. waxtu mu ne lañu. Casamance lañu am dëkk Casamance am dëkk sama waajur bu góor waajuram bu góor mooy njiitu ulama Mandeng mooy njiitu ulama Mandeng képp kuy doomu soxna di Mandeng képp kuy doomu soxna di Mandeng mooy sa kilifa di Alaaji Sidiya Dramé di Alaaji Sidiya Dramé ma ko ku ko xam ku ko xam xam ne man du doon sama cër may toog télé di wax lenn ci li may def xam cëru baayam moom cëram wanewul muy toog ci kon nag ñu ngi sant ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax nañu di wax ne nañu delluwaat ndaw ñi. nañu delluwaat ndaw ñi. ñu jàng alquran. ñu jàng alquran. Mm-hmm. ndax boo xoolee ki fi jàng xatma bi léegi. ndax soo xoolee xale bi jàng xatma bi léegi. amagul 10 ans. amagul fukki at. te mokkal na alxuraan. te mokkal na alxuraan. dix ans. dix mokkal alxuraan. mokkal te bu ñu seetloo nag. te suñu seetlee bi ñu bàyyee li ñuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi loon ba tey. nee na li ñu Seydina Muhammad topp li ñu tubaab jox. topp li ñu tubaab yi jox. si lañ ñàkk a jóg si jafe-jafe ba tey. si lañu a jóg si jafe-jafe. jafe-jafe yi ñu am yëpp. looloo ko sabab. kon nag jamono ji ni mu doyee waar. kon nag jamono ji benn solution moo am. benn solution moo am. mooy ndaw ñi. mooy ndaw ñi ñu delloowaat ci yi. delloowaat ci leen ci daal daara ji dañuy gëmloo nañu nag boo jàngul tubaab wala nasaraan munoo tekki munoo jëriñu ay naxaate la yàlla ay mbiram romb na foofu nañu xool ñi ci réew mi ñu tuddee leen ay milliardaires ñëpp ay doomu daara la dëgg la ñëpp ay doomu daara la ñëpp ay doomu daara kon nag nañu góorgóorlu kon nag nañu góorgóorlu jël xale yi jox ko yàlla jox ko bi jox yonent bi ngir xale yi mën a tegu ci yoon ngir xale yi a tegu ci yoon ñun nag ñun nag suñu liggéey yëpp suñu liggéey daara la am nañ fa daara bu ñu naan umul xuraa am nañ fa daara bu naan umul xuraa la fa nekk ci taalibe ëpp na huit cent personnes taalibe huit cent personnes amul ku yaayam di fay amul ku papam di fay amul bis bu set ñetti saaku ceeb la dundee ñu wàcce ñetti saaku ceeb di toog du subvention état du kenn ku si jàpp loxoom ginnaaw yàlla ak yonent bi ak am nañ fa daara joo xamante ni de deux cent personnes a ngi fa plus de deux cent personnes amul ku yaayam di fay wala papaam parcelle fii sama kër fi ma nekk daara alxuraan la li fa nekk ëpp na soixante personnes amul ku yaayam di fay wala papaam kon li ñuy def yëpp dañ koy def jihaad fi sabilillah éducation ak éducation ngir ndaw ñi ngir ndaw ñi bi ñu jàngatee jamono xool ni mu mel bi ñu jamono xool ni mu mel xam ne xam ni lu dul alxuraan mënu koo ko mënu moo tax moo tax li ñu am yëpp ñu investir ko si daara alxuraan investir ko maa ngi sant ñëpp mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te Matar yow ak Sidi ak Sidi ak Bakane ak Bakane Bas moom miin na daara ji moom xam na ko bëgg naa yéen ñëpp ñi fi ne ñu bàyyi xel daara alquran yi ndax dañ ne axlullaahi axlul quran yàlla dafa ne bu amee ay waa kër mooy ñooñu alquran hmm. yàlla bu amee ay waa kër yàlla su amee ay waa kër mooy ñiy taxaw alxuraan ak di ko wattu di ko jàngaleeg di di jàng te bëgg nañ li ngeen di def ci social xam nañ ne génnewu leen ci daara yi nañ ci daara mais bëgg naa. mais bëgg na daara yi gën see gis seen bopp. daara yi gën see gis seen bopp. daara yi. daara yi nañ ci gën a gis seen bopp. nañ ci gën a gis seen bëri na nit ku dëddu. bare na nit ku ñu tegal ko kaami ñu tegal ko kaami di ko ñaanal alxuraan di ko rëbb alxuraan di ko rëbb ndax ba muy dund taxawul alxuraan taxawul njooñu alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ki mënul ci moom dara mooy ki jàngul alxuraan jànguluwu ko te teewewul fi ñu koy kooku yonent bi mënu dara koo doon ak foo mën kon nag ñuy soññaat nit ñi ñu delloo ndaw ñi ci daara yi man nag mënumaa wax ci leneen dul alxuraan xam du ma fi toog naan leen sama xaatim beeg sama sama du sama cër xaw ma ko du sama cër du cëram fekk ñu sunu ay kilifa di def kon nag li ñu xam mooy jàng ak jàngale alquraanu karim ku ñuy woo tamit ci loolu lañ lay woo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ bi danoo bëgg gaay على نبينا xam ko suñu xarit euh, artiste seen way bisu mbokkam bisu xaritam ñu bokk label di fay di dalal ci site internet waaw maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu man tamit di dalal ak jàmm di am bu baax a baax ci daje bi ñu dajewaat fii ci suma ngénte frère bi muy def jum donc ñoom bu baax nag ñëw fi tey rawatina nag ñu ñëw fekk mu jël xale bi tuddee ko Matar Diop Soubatel vraiment ñu am ci xol bu sedd ñu am ci contentement boo xam ni am na fu mu commencé waaye amul fu mu yàlla vraiment kontaan ni ko nit ñi gisee ci image yi Sidi ak Bass ñoo bokk label bu ñu ne. mais li ñuy gis souvent artistes yu bokk label dañuy concurrent mais duñu gis loolu seen diggante yow ak moom yéen ñaar. non Bass sama frère la Bass euh, man ak moom euh, du ay musique quoi dafa yàgg. comprendre nga du ay musique dafa yàgg mu bëgg ma soxnaam bëgg ma doomam bi rek Bébé Diagne noonu la ma bëggee ba pare ñu nekk dëkkandoo nekk ay gars yi man moom balaa ay label balaa si bateel suma gars la gars la xamal Bass mooy loolu quoi ay musique boole suma gars la. Gaañ la. nga wax ko nga ñëw fekk ñu tuddee doom ji seen grand frère seen PDG Matar Diop. kontaan Matar mérité na loolu nee naa ko baax def na lu rafet def na lu rafet moom la ñuy wax léegi nii du man rek maa wax ñëpp koy wax donc li ko defal dañ ko da ko mérité Matar nit ku baax Matar nit ku bari bari Matar nit ku am personnalité Matar nit ku góor la nit ku alalam boolewut ak kenn la dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla fal cat yàlla may ko ba ba turandoom bi màgg ba di ko taral di ko yóbbu màkk di ko jox biir màkk yi ko jox caabi oto caabi kër yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal def na lu rafet waaye te rafet na mënul weesu rafet na waaye raf def na lu rafet waaye ndax sagal na ñu sagal na Matar sagal na képp kuy artiste ku nekk biir Sobatel ndax wane na ni ni ñun ñëpp nekk te ñoo ndey ak baay bas def na lu rafet. loolu la wax sànq nee na dafa wane ne. waaw ak Matar rek liggéey. papaam la grand frère am la. te dina wane yoon ci ñi nekk Sobatel. barke Sëñ def na lu rafet waaw def na lu rafet yàlla na ko yàlla lafal cat barke. di ko ñaanal yàlla carrière bi aussi lépp luñ ci bëgg boo ko xam suñu borom defal ko ko ci barki Serigne Saliou yàlla mën na ko yàlla ko defal yàlla wéral baat bi bàyyi ko xaritam yi ma koy nuyu ñoom si biiru ASC bi yëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax parce que encore une fois def na lu rafet à part loolu fan si namati nañu ci yeneen facette. waaw ñu ngi waajal lu bees incha allah ci semaine bi. mais kooku ngi ci ngénte. semaine bi waaw ci semaine bi ñu a ci semaine bi loolu mooy ñu exclusivité bi lu muy doon. na mi ngi ñëw léegi dans la semaine incha allah. ci ci ban fànn. mais ci lépp la nañ ma xaar. rap reggae mbalax la. surprise laa bëgg mu doon non mbalax la kay mbalax la dama bëgg mbalax nag mbalax la. Ah, mais ay jagaay ay jagaay gars nee nañ ñu ñëw. <laughs>